tey ñu ñëw nag fekk bés bu màgg bii di ñaan yàlla suñu borom yal ko teew at yu baree baree bari bari di bare yoon nag ñi nga xam ñoo jàppati daara ji mu association sortant yi nga xam ñoo jànge woon fii ci Koki yàlla ñu ràññee ci nag monsieur le président Massamba Diop di si nuyu sama frère Serigne Boub di nuyu Aziz Sylla di nuyu Abbas di nuyu Assane di nuyu euh, As Ndaw di nuyu képp koo xam ne association bi nga bokk ñu ngi leen nuyu baax di la sant baax di la gërëm di nuyu la région de Louga du nuyu madame la maire ma sœur Koumba Ndiaye du nuyu madame les hauts conseillers des collectivités territoriales ma sœur Penda maa lay nuyu du nuyu député yi fi teew yépp délégation bi mu àndal nag délégation bu rëy la waaye comme temps bi dafa xoj amuñ jot wax bi ñu def ñëpp waaye dina fi ràññee nga xam ne ñoom la àndal ñett wala ñeent di tuutal madame la présidente Seynabou Guèye di nuyu madame la directrice de la protection de la protection de la promotion des droits de l'enfant de la protection di ànd ak nag la directrice de la case des tout petits suñu sœur Maïmouna Soxo pour wane ne bés bi ñor nañu képp koo xam ne ci ministère bi nga nekk ànd ak li nga xam ne yaa am pàcc bi nga xam ne yoon ko téye ci affaire xale yi àndal ak ñoom ñoo fii ànd ak secrétaire général du ministère ak délégation bi àndal ñëpp tey nag bés bi bés cantal ak ngërëm la boo xam ne monsieur le président def nañu boo demee na nga sant waa Koki seen taxawaay seen liggéey li xam ne pàcc bu am solo ci askan bi parce que ba ñu waxee réew nag wax nañu xale réew ma parce que réew mi tey jii bu ñu demee ci kanam ñi ko yore mooy xale yi kon seen taxawaay lu am solo la ngeen am ci contribution bu am solo boo xam ne bii Sénégal yëpp xam nañ ko waxuma Sénégal waaye bitim réew ràññee nañu taalay kook bi seen taxawaay ci jàngal xale yi ci yar leen def suñu ay jikko yu baax ba ëllëgam si ñu mu nekk ay jii sénégalais loolu nag état Sénégal ñu ko fay parce que jàpp naa ne lépp loo xam ne rek li intervention ci askan wi état bi la war waaye ñi nekk intermédiaire yi jàpp tam ci lig ci liggéey boobu indi seen contribution ñooñu tam ñu jar a jëf-jëfal la ñu jar a considéré ñu jar jox seen wàll la ñu war a jox seen cër la président de la république nag placé nag ci cœur développement c'est-à-dire ci programme développement Sénégal mu teg ci protection xale yi na xale neen yiir na ngeen yërëm na ngeen jàppale waaye na ngeen jàngal ëllëgam si bu ñu mën a xam fu ñu war a taxaw am ay valeur yu xam ne am ay valeur yoo xam ne dañu ci ñu nekk ay sénégalais yoo xam ne dañu respecté loolu nag ngeen am ci taxawaay bu rëy kon ñu ngi sant di remercier képp koo xam dugal nga ca loxo ci daara ji sant ñi nga xam ñoo fi jàngale waaye beral loxo tam dayu daara yi nga xam ne kokki ñoom tam ñu liggéey liggéey bu am solo ci kokki parce que xale yi nag soxla nañ seen ay yaay soxla nañ seen ay papa di wax ne li ñuy liggéey ci liggéey boobu ñu ngi ci avancé bu am solo waaye acteur yi nekk ci base bi nga xam ñoo jàppale ci liggéey boobu ñoom te am nañ ci wàll am ci cër kon ñu ngi sant bu baax di leen mën a nekk Sénégal ña fa nekk ci liggéey nga xam ne kenn fayu leen dañu am initiative dugal seen loxo ci éducation xale yi état Sénégal amul seen fay kon président xam na seen taxawaay xam na seen liggéey nee Sénégal foo dem dëkk boo dem taal nañ fa am na daara te ña fa nekk ci liggéey dañoo war a jël en charge loolu moo tax président teg programme yi am solo yoo xam ne programme de la réalisation des infrastructures daara moderne accompagner au sëriñ daara yi indi leen ay financement indi leen ay soutien appui yoo xam ne ay denrées yoo xam ne bu mën jàpp parce que xale tamit nag da nga soxla daara dañoo soxla ku leen dimbale ku leen jàppale ba ñu mën a yor xale ñu ko war a yore dañuy wax ne xale bu nekk ci mbedd mi bu ñu xale taxawaal waaye xale tam bu toogee daara dafa am ñu koy toogee loolu tax président bëgg ñu jàppale daara yi mu def ci xaalis bu takkoo takku fas yéene daara fu mu ne Sénégal rek indi contribution jàppale la pour ëllëgam si biir nga sa xale ba nga nekk ci mbedd mi xale yi nag jàpp naa ne gis nañu exemple xam nañ wet bi bokk ci bu ñu xool ñi toog tey yi nga xam ne association daara ñu association sortant le peuple dañu xam ne vraiment alxuraan lu am solo la te bu ñu ko gisalee ci xale dina xam te xale yi am valeur dina xale yi respect seen bopp xam ñoom ñooy école nekk ay jigéen ci sa pays te loolu la Sénégal soxla kon cant ak gërëm ak vraiment ziar ziar kilifa teew yépp sëriñ yépp maa ngi ziar ñëpp di sama dëkk laa ñëw fii ci Koki sama dëkku maam la ci ndey ak ci baay sama yaay loo sama papa Diop kon defe naa bu ma ñëw koy war naa fee mën a ñëw xam naa li ma fi bokk kon fii laa war a ñëw ñëw naa fi maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp di indiwaat cant ak gërëm son excellence monsieur le président de la ci li nga xam ngeen ko defal te mun leen koo fay ci jàpp bi ngeen jàpp te bàyyi éducation xale yi nekk importance bu am solo ci programme développement réew mi président di def solo ngeen ko accompagner ci loolu kon moom amul seen fay yàlla ñu am seen fay yàlla leen fay ñu ñaan yàlla su déwénee yàlla fi ñëwaat fekk fi ñu kenn bañ a manqué kere bu duggaa ci réew mi fas yéene fi génn ak yàlla na ko def fi génne comme ni ko euh, sëriñ comme ni ko waxee léegi rek mu nekk bi nga xam ne mooy aar ñëpp yàlla mën na ko am na ko ñu ñaan yàlla sunu borom yàlla barke daje bi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf